أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وخلفائه ذوي الفضل والجاه إخوة الإيمان والعقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci waxtaan wi passé walla boog ci dërs bi passé waxtaane woon nañu globalement lenn min al ayaati al quraaniya yoo xam ne dafa ñëw di melal nitu yonent yàlla luut alayhi salaam mbon gi nga xam ne kenn jiituwu leen ci ci àdd ci nitu àdduna te moo di mbirum góor jigéen yàlla bi muy bind nee na binduma pour caaxaan afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna la turjaun yàlla bindul pour fo am na lu tax mu bind te yàlla li mu bind li muy bari bari li muy sew sew li muy yaatu yaatu ba ci suuf sii pepp bu ci nekk yàlla xam na fa mu nekk xam na itam ñaata pepp la dara umpul yàlla laa yaczubu anhu mithqaalu darratin fi lsamawati wala fi l ard wala asgara min dalika wala akbar illa fi kitaabin mubin wa cindahu cilmu mafatixu lgayb laa yaclamuha illa hu wa yaclamu ma fi lbarri walbaxr wa ma tasqutu min waraqatin illa yaclamuha wala xabatin fi dulumaati l ardi wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubin kon soob na suñu boroom subhaanahu wa taala bi maxdi fadlihi wa judihi wa karami mu bind bind asamaan yeeg suuf yi bind awaalim yépp doomu aadama ñëw ci étape bu mujj bi ginnaaw bi ko yàlla waajalee lépp loo xam ne soxla na ko ci kaw suuf min miyaahin aw min bihaarin wa anhaarin wa awdiyatin wa jibaalin wa xidaabin wa wa wa ila axiri la mu soxla ci safara soxla ko min tharawaatin barriyatin wa baxriyatin wa macdaniyatin lépp rek yàlla waajale ko doomu aadama ba noppi ne ko ñëwal nga sanc nag ñëwal nga dëkk ñaari yëf daal mooy am tegal naa la yoon xàllal naa la yoonu njub soo ci jaaree fa man tabia hudaaya falaa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun waaye beneen yoon wi nga xam ne mooy ñell wi di yoonu seytaane nga bëgg cee jaar ba noppi am li nga bëgg yàlla nee na du ma la ko defal wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan dankan wa naxshuruhu yowma alqiyamati ama lii daal mooy sama njub notice baa ngi nii soo ko jëfandikoo dara du la réer ci appareil bi te moo di àdduna li nga bëgg yépp danga ko am soo ko deful nag yow doomu aadama coow lay bari jàppal bàyyil waaye li nga bëgg doo ko am mukk kon mbokk yi yàlla dafa dafa dafa tegu ci yoon ñu baal ma sax ci waxin wi waaye inna rabbi ala sirati mustaqim moo koy wane yàlla dafa tegu ci yoon lu nekk yàlla daf ko def taqdiir waaw teg ko ci yoon bi diqa dara yàlla du caaxaan yàlla du tâtonner yàlla du làmbutu amul lu mu réere ndegam yow tubaab bi rekk ngay naw di naw intelligence am di naw ni mu defare oto ni mu defare portable ni mu defaree avion ni mu defaree leneen ak leneen te fekk ma wàdd yi ko composé yëpp nit daf ko fi fekk yàlla may ko xel ne ko jëfandikool sa xel rabbaskeel sa xel rattal sa xel nga jël nga composé nga jàng xeeti xam-xam yi nga xam ne moo lay dimbale ci wàllu googu tàggat ci sa xel namm ci sa xel nga dem a dem ba la nga ca soxla woon lépp nga mën ko jëfandikoo waxantuma la ak buur bi nga xam ne moo bit lépp la def taqdir kon su yàlla bindee nit muy suñu maam aadam yaa ayuha nnaasu ttaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida ba noppi ne wa xalaqa minha zawjaha pour mu nekk wéttalam walladi xalaqakum min nafsin waxida wa jaala minha zawjaha li yaskuna ilayha kon wéttalu doomu aadama wéttalu góor mooy jigéen moo mën a nekk wéttalam ñu ànd ñoom ñaar booloo ci biir néegu sëy bu dagan waxuma njaaloo waxuma mooy yàlla waxuma topp sa bakkan déedéet ñu ànd bokk ci biir néegu sëy doom war caa bàyyi ko wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa kon yàlla mi tëral xam ne góor ak jigéen ñoo mën a ànd wala qad xalaqna al insana min sulalatin min tin summa jacalnaahu nutfatan fi qararin makin atwaar yooyu doomu aadama di ja di jaar ila an yatima al xalqu wa takwiinu fii batni l ummi jënin bi di def takawun di def tatawur min marxalatin ila oxra wa min tawrin ila axara xata yatima al xalqu fi axiri tawrin min atwaari xayaatihi fi batni ummi mbokk yi yàlla mi nga xam ne moo tëral tëralin bu rafet boobu bu doomu aadama demee ànd ak seytaane seytaane woon ne ne woon la aqudanna lahum sirataka almustaqim la attaxidanna min cibadika nasiban mafruda la udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna xalqa allahi fala yu fala yubattikunna aadaana al ancaami wala yugayirunna xalqa allah yàlla ne bu man yettaxidi shaytaana waliyan min dunillah faqad xasira xusraanan mubina yow nga dem ànd ak shaytaane ànd ak bakkan ànd ak bànneex ne man daal yàlla yoon wi nga xam ne bii moom la tëral doomu aadama ne bu ci jaaree bu agsee ci man dana am njub yoon woowu man neexuma man daal ni yàlla tëral def ko ci góor yàlla tëral lii def ko ci jigéen ne ñoom ñaar dañu ànd pour njaboot man cee juddoo ëllëg yokk xeet wi tanaasul mën a am jurante mën a am doomu aadama res fi reste fi di dund ba nekk ay nangami milliards ci kaw suuf yaakaar naa ne mbokk yi yoon woowu bu ko doomu aadama wàccee dama dem ba ne góor léegi waratul ànd ak jigéen ci biir néegu sëy mais nañ ko wutal moroomu góoram ñoom ñaar seen ñaari lex yu ne lëng bët yu xonq cur kanam yu ñaaw bay bëgg a dee sikkim yu ñagas bay bëgg a dee plus ak plus moins ak moins nga ne ñii nañu ànd pour bëgg a yàq penc mi te problème yi fi nekk ñu war ko régler di ay problème primordiaux ay problème principaux nit ñaa ngi fi lekkuñu nit ñaa ngi fi naanuñu ndox mu baax nit ñaa ngi fi jànguñu nit ñaa ngi fi fajuwuñu nit ñaa ngi fi amuñu fu ñu dëkk nit ñaa ngi fi di dee xiif ñii ngi fanaan ci mbedd yi boo demee ci àll bi baykat yi dee nañu ndox mu baax amul ba ci Dakar gii boo duggee ci banlieue bi da nga da ngay gis ne nit ñi ndox mi ñuy naan ndox la boo xamante ne bii du eau potable boo demee ci suñu hôpitaux yi nit ñaa ngi fanaan ci suuf dara doyul te Afrique yépp moo fi nekk ba ci réewu tubaab bi am na ci réewu tubaab yoo xam ne bien que ne am nañu développement. mais boo demee nit ñaa ngi fanaan ci mbedd yi am na ñoo xam ne bu ñu lekkee dañuy dem ci grande surface yi ci poubelle yi la ñuy dem di fa fortaatu ay tomate ak ay légumes ak viande yi nga xam ne dañ koy sànni di ko lekk mais mbokk yi problème yu mel nii problématique yu mel nii ñu am ko ci biir penc mi alal ji nga xam ne bii ñu ngi koy jël di ko def ci ngànnaay di rey di nangu suufi jàmbur yi nangu pétrole jàmbur yi di muuc deretu nit ñi ah mbokk yi man dama xamul xel lan lay jëriñ agenda bi nga xam ne bi moom la Nations Unies am ne da ngay défendre doomu aadama mais défendre doomu aadama ci lan yow nit ki da nga koy défendre ci lu ko amal njëriñ fexe ba ñëpp dund dund gu tey ñëpp am liggéey dëkk yëpp coopération bi war a am diggante sud ak nord ñu organiser ko teg ko ci yoon teg ko ci dëgg bàyyi ñoog sunuy ressources bu fekkente ne coopération mënta ñàkk mu tegu ci équité tegu ci yoon tegu ci tegu ci mbaax waaw su paree ma jariñu nga jariñu mais yow yooyu yëpp rek lewuloo ko sa itte yëpp mooy nooy fexe ba semer désordre zone de tension yi di gën di yokk ah problème yooyu nekk fii rek lewuloo ko nga ne léegi daal man li ma itteel mooy te yaa ngi naan da ngay sàmm droit doomu aadama ci lu ko neex def pourquoi sàmmuloo doomu aadama pour mu fexe ba am fu mu dëkk boo demee ci réewu tubaab bi am na ci kër yu bari yoo xam ne dañ koo tëj xale yi dañuy jékki-jékki mer attaqué kër yi dajj ko dëkk kenn du leen mënal dara délinquance taux bi dafay gën di yokk banditisme kadalik criminalité boo demee ci réew yu mag yi seconde bu nekk am na un meurtre papa ngi rey doom doom a ngi rey papa jëkkër a ngi rey jabar jabar a ngi rey jëkkër kenn amul jàmm mbokk yi problème yu mel noonu man dama defe ne tey moo waroon na nekk suñu ordre du jour moo waroon na nekk suñu programme boo xamante ne bi àdduna bi yëpp dañ cee war a bokk banko mais na góor a góor sëy mbokk yi lan la ñu mën a apporter mbokk yi lan la ñu mën a apporter yàq tabax société boo xamante ne bi diina amu ca rôle mbaax amu ca rôle jigéen ak jigéen ànd ne dañuy sëy ci seen biir loolu kenn du ko tudde sëy puisque sëy dafay tegu ci yoon tegu ci ay normes tegu ci ay dawaabit tegu ci ay arkaan mais loolu mbokk yi du sëy caaxaan la ak yàq xale yi nga xam ne ñu ngi ci mbedd mi di taxawaalu xale yi nga xam ne ñu ngi dee ci géej gi xale yi nga xam ne ñu ngi ci banlieue bi benn kër téeméeri ni dëkk fa papa dundul yaay dundul njaboot gi dunduñu mbokk yi man dama defe ne problème yooyu moom la ñu war a jéem a lijjanti te pourtant lu leen dundal mi ngi fi mawarid yaa ngi fi al mawaridu tabiiya mutawaffira mushkilatu nudra problème la boo xamante ne bii dégg nga tubaab yi rek économiste tubaab bi ñi nga xam ne ñoo def science politique wala boog li ñuy tudde al iqtisaadu siyaasi waaw économie politique nga xamante ne bi xam nañu lan moo di mushkilatu nudra wal wafra lan mooy rareté ak abondance loolu yëpp problème la yoo xam ne ñun ñoo ko créé mais yàlla nee na li ma leen dencal ci biir suuf du jeex wa saxara lakum maa fi samawati wa ma fi l ardi jamian min wal arda bada dalika daxaaha axraja minha maaha wa maraaha wal jibala arsaaha mataan lakum wa li ancaamikum إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم دري يالا مانكي والمبوكي li ñu exploité li ñu tegagul bët découvrir guñ ko moo ko ëpp ay milliards yoon wa in min cheyin illa indana xazainu waaye wa ma nunaziluhu illa bi qadarin maalum kon mbokk yi problème bi am ci àdduna bi mbir mi dafa féete ci ay loxo yoo xam ne ay loxoy bandi lañu ay criminel lañu mucc deretu nit ñi lañ fi nekk waaw tubaab yooyu nag tey dem nañ ba yàq seeni réew dem nañ ba taal ko xam nañ ne wóor na leen ne échec nañu l'Occident a échoué wóor na leen développement du ci ay bâtiment yu rafet déedéet du ci ay infrastructure dégg nga biniya taxtiya biniya fawqiya al buna at taxtiya wal fawqiya mën nañ koo defar ba mu baax terewul nit ñi bu ñu nitewul xamuñu nan lañ koy gérer mi ngi mel ni oto bu rafet boo jël def ci benn xet xamu ci dara xamu ci dara man problème yooyu laa gis ni dama defoon tey doomu aadama ak intelligence am fi mu toll ñu naan dem na ci weer waak dem na ci miriix dem na ci mustari dem na ci mars dem na feneen ak feneen dégg nga bis bu nekk conquête ñi ngi conquérir espace bi ah man dama defee ne doomu aadama ci lancé boobu la waroon a gën a continuer dégg nga dimbale nit ñi feebar yaa ngi gën di bari tey la médecine gën a avancé dégg nga ay nouvelle maladie yoo xamante ne bii da ngay naan garab ba xóoge médecin yi gëstu nañoo gëstu bay bëgg a dee mbokk yi war nañoo gëstu lan moo indi problème yooyu ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ñu ne ko fi ñukk wut agenda boo xam ne dugg ci école yi di jàngal xale yi affaire sexe naka la góor ak góor war a mën a ànd naka la jigéen ak jigéen war a mën a ànde waaw nit ki sax am na liberté sëy ak animal mbokk yi lii maanaam moo di ne àdduna bi dafay tukki dafay tukki li yàlla tëraloon lépp ñu ne du noonu li sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon ñu ne du noonu soo waxee wàllu diine sax ñu ne terroriste nga soo waxee wàllu mbaax ñu ne kii dafa tardé ah yow nga am fulla bu toll ne li nga gëm te gëmoo lu baax di ci def sa alal ah am na ci réew yu mag yoo xam ne légaliser nañu dégg nga programme boobu suñu réew yi tey xëy na officiellement de gisaguñu. waaye liy dox ci biir réew mi ak li ñuy ngun nguni ba ci ba ci proposition de loi bi nit ñu ko rejeté fukki député yoo xamante ne bi ñoo toog joxe seen kàddu ne mbir mi du àgg sax assemblée jarul sax muy dem plénière cela veut dire ne kon am na ay dësu waaw am na loo xam ne mi ngi daw wara alkawalis hunaka xalfiyaat yoo xamante ne bi ñun fa ñuy nosee ko noccee ñun fekke wuñ ko ñañu fa toogal waroon di ñu nosal di ñu noccil ni ñu ko bëggee ni ko yàlla bëggee pour ñu am ngërëmal yàlla ñooñu dañuy trahir trahir yàlla yaa ayuha alladina amanu laa taxuunu llaha wa rasula wa taxuunu amaanatikum wa antum taalamuun nga def lu mel noonu ba noppi bëgg na da nga am jàmm ca kaw àdduna mais munta nekk wokk yi munta nekk munta nekk loolu moo tax mbokk yi problème la boo xam ne bu ñu toogee di seetaan du baax parce que ñun ñëpp dañ ay responsable lañu te yàlla nee na wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa moytandiku leen fitna bu ñëwee buy dal du dal ci ñi defoon rek ña nga xamante ne bi fekke woon nañ ko waroon a wax te waxuñu kaanu laa yatanahawna laa yatanahawna an munkarin faalu la bisa ma kaanu yafaaluun ba yàlla ni mbugal ñëpp la mbugal parce que ñi ci dañ doon seetaan kon jaaduwul ñu seetaan waratuñoo tëdd waratuñoo nelaw waratuñoo lekk ba suur war nañoo conjuguer sunuy effort xam le ne lii xew jaaduwul te normalul du ñu nangu mukk ay góor jigéen bëgg a dominer Sénégal góor ak jigéen taxaw ne dañuy am droit pour ñu leen di maye ah ni ñuy ni ñuy mayee góor ak jigéen ñu mayee ko góor ak góor wala jigéen ak jigéen ci biir jàkka pour ñu am ay même droit ne dañuy sëy mbokk yi loolu laa wax ne jaaduwul yellul te kenn waru koo seetaan wallahi ku ko fekke man cee wax wala nga mën a def te defuloo ëllëg da nga ko layoog sa borom maa la ko wax ñun ñëpp war a jóg ñëpp a war a wax am nañu lu ñu doy bala ngay lijjanti mbirum góor ak góor guy sëy jigéen ak jigéen juy sëy mais jigéen ñi fi nekk te sëy ñu kenn dafa xam naka la toll yow bu góor ak góor doon ànd kon da ngay judd foo ma sa gis góor ak góor gu jur doom wala jigéen ak jigéen bu jur doom wa min kulli shay'in xalaqna zawjayn la yàlla wax alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kaana alaqatan fa xalaqa fa sawwa fa jaala minhu zawjayni aldhakara wal untha waxul azzakara wa zakara wal untha wal untha fa jaala minhu zawjayni azzakara wal untha ñooñu la yàlla boole njaboot di am waaw moo tax xale ba ba ko ñaari góor jigéen ñi adopté mu dem école ne leen man mais man li ma jaaxal man ñaari papa la am te yéen ñi ku ci nekk benn papa nga am kon mbokk yi loolu moom lañ doon ubbee dars bi pour mën a dugg nag ci. aaya boo xam ne jàngoon nañ ko ci darse bi passé waaye ayaat yi dafa gudd te gis nañu ne ñu jàng ko firi ko jarul yàkkamti bala ñuy agsi ci ahadis yi ñu waxoon man maa gis ne damay delluwaat ginnaaw ndax dama ko maf ñàndu woon rek te gis naa ne jaar jaadu na rafet na ñu firi ko ndax irtibaat bi nga xam ne moo am bayna al aayil quraaniyati wa bayna suwar al quraaniyati yàllaa ngi wax ci suratul araaf li commencé ci aaye juróom-ñett fukk ba aaye juróom-ñett fukk ak ñeent mi ngi ciy waxtaane qistatu luut alayhi salaam bismillahi irrahmani irrahim wa luutan id qaala li qawmih atatuuna alfaxishata ma sabaqakum biha min axadin min alaalamin إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين بقي آية 80 81 82 83 با 84 يالا ميغي ني سي تريتيل قصه يونت يالا لوط عليه الصلاه والسلام اك نيتام yàlla mi ngi tàmbalee wa luutan mansuubun bi taqdiiri ficlin taqdiiruhu wadkuru luutan aw arsalna luuta kilifa gi nee na baatu luut li tax ñu nasab ko moo di dafa am fical buñ fi nattale moo di na ngeen fàttaliku yontu yàlla luut wala man seen boroom arsalna luutan ni ma yónnee woon mbokk yonentam yi ko fi jiitu woon noonu laa yónnee itam luut lan la wax ba mu ñëwee luut moom moo di doomu haaraan ibnu azar wa id qaala ibrahimu li abihi azara kon luut pappaam ak yonent yàlla ibrahima ñoom ay doomi azar lañu ci ñu wax ne azar moo jur ibrahima dëggantaan wa huwa ibnu axi ibrahima alxalil alayhim assalaam doom mbokkam la mi ngi juddoo ca uur fi tarafi lcharqi min janubi al iraq wa kaanat tusamma arda babil fa la gane àdduna haajara bacda mawti waalidihi maca ammihi ibrahima ila ma bayna annahrayni bi way juróom génnee àdduna mu ànd ak bàyyi taxam suñu maam ibrahima al xalil dem ba ca ma bayna nahrayni ci jaziratu qura xaytu tuujadu mamlakatu ashur thumma dahaba maahu ila ardi sham bu jën a dem sham donte ci iraq la juddoo xaytu askanahu ibrahimu sharqiya al ordon mu dem ba ca ordon fak feeti sharq fa la ko dëkkal وعاش في المكان المسمى بعمق السديم قرب البحر الميت أو بحر لوط نينا مو دوند سي براب بو خامني ñing koy tuddé nonu mu nek ci wétu al bahrul mayyit wala bok bahru lut juroomi dekk la سكن لوط في إحداها المسمات بسدوم موم دك باñ ko tanalon pour mu dekk fa mom lañuy tuddé سدوم ثم بعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى بكو يالا يوني نك نكو سا ميسيون لامبونا سدوم اك دك ييغا خامني موكو ور يدعوهم الى الله عز وجل مولن ديو جملن سي سونو بروم سبحانه وتعالى ويأمرهم بالمعروف مولن دي ديغال لو باخ وينهاهم عن المنكر دي لن تري لب لو خامني دنجكو سيب وما يرتكبونه من الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم mbon gi nga xam ne ñoom ñoo ko inventel seen bopp di ko def amul benn doomu aadama bu leen ci jiitu ak leneen lu dul doomu aadama ñoo ko njëkk a def ci kaw suuf loolu mooy lan wa huwa ityaanu dhukuri duna al inaafi wa hada lays lam shay'un lam yakun banu aadama ta'lafuhu nee na lii ñuy def te moo di góor ak góor di ànd di mooy yàlla bàyyi fi soxna yi bañ a takk jabar lànk ñaari kanam yu ñagas yu ñàng jàkkaarloo jàkkaarloo ba sax ëpp na waxantuma laag di seq leneen xanaa kay ñàkk guu ak ñàkk yëg-yëg ak xel mu dese ak xol xol bu dee boo xamante ni bii seytaane ferankulaayu na ca bu baax a baax a baax tàgg na ca nen na ca toston na ca doom juddu na ca ba nit ki jëmmi nit la jëmmi nit la yore yàlla masxu na ko bu dul woon ak sopp gu yàlla sopp sallallahu alayhi wa sallama golo guy dox ci mbedd mi lay nekk waaye yàlla dafa teral xeetu sayduna muhammad alayhi salaatu wa salaam am na xeetu mbugal yoo xam ne bu leen ko tegul ca kaw itam mën na leen ko teg ci biir bii nag ci la bokk kon góor ak góor di ànd jigéen ak jigéen di ànd nee na loolu doomu aadama mosu koo xam xatta sanaa dalika ahlu sadum waa sadum ñoo ko njëkk a def yonent yàlla luut kon yàlla yónni ko ci sadum ak li ko wër lan la leen wax wa luutan إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين كان مسلم جيتو إنكم لتأتون الرجال تعرب بني أتى المرأة أتى الرجل المرأة أي غشيها جخصون أقموم léegi nag fii góor ak góor ñoo doon jaxasoo jigéen ak jigéen ñoo doon jaxasoo yàlla ne إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون يند دنجين جيجي للن يالا دغنال نين بايي كو في دم تي لو خامتيني بي يالا داف كو حرامال تنقل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ay mus musrifuuna kon li muy tekki ay mutajaawizuuna alxalaala ila alxaram yi da ngeen a dépassé fi leen yàlla yemloo bornu yi da ngeen ko jékki li yàlla daganal mu lew la doom ndaw saa ngi nii gis nga ko bëgg nga ko ñaan nga ko mën nañ la ko war nañ la ko may ponk yi dagan na ñu may la ko mu war a nekk ci sa wet ngeen ànd ci biir néegu say doom juddoo ci yokk xeet wi waaw nitu yàlla dana ci jóge boroom xam-xam dana ci jóge ingénieur dana ci jóge dégg nga magistrat dana ci génn baykat bu mën a bay dana ci génn nappkat dana ci génn ñi nekk ca marché ba di jaay ñii ngi ci menuiserie dégg nga ñii ngi ci plomberie ñii ngi ci leneen ak leneen mais ressources humaines yooyu yëpp yow tey nga bëgg koo couper ngir sa bëgg-bëggu bopp kon mbokk yi tubaab yi am na lu ñu nar lu ñu waxul la ba waxoon rek am na luy daw wara alkawalis tubaab yi am na lu ñu ndar ci àdduna bi te tubaab yi moomuñu àdduna bi àdduna bi yàllaa ko moom tubaab yi duñu suñu ay kilifa waruñu ñëw jiital ci dara au contraire ñun ñii di ay jullit nga xam ne tedd nga ñoo ko moom walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil muminina walakin al munafiqina la yafqahun bu ñu ñàkkee fayda nag ba tubaab yi def ñu maam gonk war ci suñu kaw yore yat di ñu ko ndodd dégg nga di ñu ko dóor jiital ñu ñu nangu ko ñun ñoo ñàkk fayda mais tubaab bi duñu suñu ay kilifa duñu ay roy waaye itam ci ñun ñoom lool lool la lool la lool la leen yonent yàlla luut wax innakum la ta'tuuna rijaala shahwatan min duni nisaa bal antum qawmun musrifun kon boo góor jigéen boo gis rek dafa def tajaawuz min alxalaali ila alxaram loolu maanaam moo di musrif la ca metti nag moo di nit ku réer topp bakkanam nanguwul ko ko wax dëgg am na ñoo xam ne kenn du leen yedd kenn du leen wax dëgg kenn du leen jubbanti sabat bi suuf ngi ci tey àdduna bi tukki loolu ki koy def maanaam moo di dafa dafa dafa dafa jàpp ne daf il est parfait dafa jàpp ne dafa mat lu mu def rek noonu la warta juum warta fakkastalu warta ñàkk a xam te loolu yàlla rek a ko jagoo mbokk yi kon ñii ba ñu nekkee ci lu bon bi leen ko yónent yàlla bi waxee nga xam ne yàlla moo ko yónni li yaduwahum jamian ila allah wa yamurahum bil maaruf wa yanhaahum an il munkar bu seen xel ya selloon te rafet dañuy toog def autocritique naqdu zaati xool ba xam lii ñu nekk lan la lan leen lan la leen mën a apporteel lan la mën a yàq ci pénc mi lan moo di maxaatir yi nga xam ne bi moom la àndal ci dund doomu aadama ci wàllu santeem ci wàllu famille ci wàllu tanaasul mais dañoo gis seen bopp wa ma kaana jawaaba qawmihi illa an qaalu axrijuhum min qaryatikum innahum unaasun yatataharuun waay nañ ñu may jàmm waay ñi buggeen leen fi bàyyee dañuy yàq dëkk bi de ànd sàmm jikko yii ñi ay politiciens lañu buggeen leen bàyyee dañuy tas dëkk bi dañuy yàq dëkk bi dañuy yàq suñu agenda dañuy yàq suñu programme na ngeen fexe ba xotti proposition de loi bi bu mu jàll mukk plénière ñu koy woote dañuy dañuy woote di dégg nga di di di woote ak mbaax waaw naan ñoom du ñu ànd ak góor yatataharuuna min adbaari rijaali ne ñoom du ñu sëy ak góor du ñu jaxasoo góor mukk ñu koy wax dégg nga dañuy dañuy jéem a laab-laab lu di jéem a baax baax lu mais génn da ngeen leen di génnee dëkk bi waaw génne Sénégal moom yombul waaye bunt yi nga xam ne ci nga waroon a jaar danañ fexe ba luñ ci mën a tëj van buñ mën a tëj danañ ko tëj ba lépp luy teraa nga waroon ak ci sa sa loxo danañ fexe ba xañ la ko suñ ko mënee ndegam ñëw moom teraa nga ana yàlla nga xam ne moomu miraatu samawati wal ard maa indakum yanfadu wa maa inda allahi baaq ku falu da nga mas a folleeku ku toog da nga mas a taxaw ku taxaw da nga mas a toog ku dund da nga mas a dee ku am da nga mas a ñàkk yàlla rek moo fi dul jóge yaa ayuha nnaasu antumul fuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyu alxamid yasaluhu man fi samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi shan kon mbokk yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax fa anjaynaahu wa ahlahu illa imraatahu kaanat min algaabirina yàlla moom buy atte waxoon naa leen ne yàlla moo di al adl inna allaha yamuru bil adli wal ihsan yàlla nee na sama ndaw lu tedd lii nga xam ne nangul na ma jël risque yu toll nii yàlla nee na ba sama ay mbugal ñëwee sama sanction ñëw yàlla nee na dama ko musal dama ko sauvé wa ahlahu ak njabootam illa imraatahu kaanat min al gaabirina soxnaam day moom kaanat min al baqina fi l adabi ñu mbugal ma topp ñu des ci soxnaam ci la bokk mbokk yi wa amtarna alayhim mataran fandur kayfa kaana aqibatu l mujrimin yàlla nee na matar bi ma wàccee ci ñoom du ndox de du galaas de déedéet du thalj du barat du ndox waaye tawu mbugal la yàlla nee na fandur kayfa kaana aqibatul mujrimina gis nga fale musrifuuna la leen tudde woon fii mujrimuun la leen tudde te ijraam ñi nga xam ne bii def nañu xam nañu lan moo di criminologie xam nañu lan moo di ijraam waaw xam nañu lan moo di jarima fandur kayfa kaana aqibatul mujrimina kon yàlla nee na góor jigéen ñi ñi nga xam ne bi dañu def tajawuz min al xalaali ila al xaraam nee na ñoom ñëpp ay criminel lañu ay bandi lañu yoo xamante ne bi dañuy yàq société dañuy yàq njaboot dañuy yàq njaboot kenn warul leen a bàyyi sax ci dëkk kon mbokk yi hadihi hiya al qissatu rabia ñeenteelu qissa te moo di qissatu luutin maa qawmihi ذكرت بعد قصة نوح وهود وصالح عليهم السلام لبيان ما حل بهم من العذاب والنكال حينما أعرضوا عن نصح الأنبياء وعتوا عن أوامر الله kon mbokk yi pour éviter audio yu gudd yi ñu ngi koy yemale fii incha allahu ba ci dars bii di ñëw waaye bàyyeeguñu de incha allahu par aaya lañ koy topp waaw aaya yu mag yooyu ñu jàngoon ci suuratu al araf yi ñu jàngoon ci suuratu shuara yi ñu jàngoon ci suuratu al ankabut yi ñu jàngoon ci suuratu naml ayaat yooyu yëpp bëgg nañ koo topp incha allahu taala benn par benn duñu ko yàkkamti de ndax mbir mi jamp na te mbir mi toll na foo xam ne ku seetaan ëllëg da nga layoog sa borom ku war a wax te waxuloo da nga layoog sa borom ñun ñëpp la ñu interpellé ñëpp a war a wax man raa minkum munkaran fal yugayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dalika adaafu l iman ñun ñi ñëpp wóor nañu ne du ñu fi dund éternellement bis dana mës a ñëw itam fi ñëpp jaar la ñuy jaar su ko defee nag yow mën na duxu kulla unaasim bi imaamihim su ëllëgee bu ñu suñu borom laajee fala nasalanna al mursalina wala nasalanna alladina ursila ilayhim te nag ñi leen fi doon mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji di nab nabi war a waxanteeg nit ñi war leen a fàttali yàlla gënal leen seen bopp gënal leen seen i daraja gënal leen seen i pouvoir gënal leen seen i titre gënal leen seen i sañ-sañ ñu waxta yàlla tax wax gi sax am na nit ñaa ngi wax kilifa yaa ngi wax waaye nag dafay toll foo xamante ni fii tam nag dafay jël yeneen dafa laaj jël yeneen paa yu gën a gaaw ndax jamono ni muy doxee rek da ngay dox dox bu ànd ak moom ba ñëpp xam ne lii ñor na la itteel na la loolu mbokk yi duñu ko jël def ko ci benn loxo loxo yépp mën laa koy teg. dank bu tàng la tibb bu tànk la boo xamante ne bii loxo bu nekk war na cee tegu ba ki ko yore xam li mu tàngoor wi lan la mu lakk ko moo xam ne dafa war a yëkkati kàddoom dafa war a wax xeebuñu ci kenn sëriñ daara yi ilimaan yi muqaddam yi cheikh yi xulafaa yi député yi ministre yi ki njiite réew mi ñépp a war a wax ndax réew mi kat ñoo ko bokk te ñun ñépp mooy suñu kilifa ñun ñëpp mooy suñu sang su yàqoo suñu suñu réew a yàqu su baaxee suñu réew a baax te nag ñàkk fayda ak matadi defe naa ne waruñoo dal mukk ba ñu toog di seetaan waaw mënta nekk kon mbokk yi ñu ngi koy yemale foofu incha allah bi ci dars bii di ñëw ñu gën a continuer gën a leeral aay bi yàlla na yàlla defal tawfiq ci toog wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.